ma sànni ko waaw ndax yoon bi yàgg na maanaam boo xoolee ñi fi teew tey gii ñi fekk biñ koy euh, ñu bëri ñëw ngi kon nag bu ñu demee ba fi mu toll nii nag ah waa dëkk bi nag ñoom ñëpp dem nañu ko sonn lool waaw lii doonul loo xam ne dañuy saboté saboté waaw dañoo dem ba sonn nag ah moo tax ñu yëkkati bii kaddu waaw ñu ñaan nag muy mu dimbali ñu ñun ñëpp dimbali waa réew mi ñëpp xam ne ñun ci réew mi lañ bokk waaw. waaw ah. léegi nag ah maanaam ñi nga bootu si ginnaawam lépp lu ñuy jooy ci ñoom la. suñu jooytu yëpp ñoom la waaw ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu yónni ñu ñëw ci ñun nañu góorgóorlu ñoom waaw li métti yëpp ñoom la président ku ne xam na ne liggéey la ku ne xam na ne am na yéen bu rafet waaye ñu nekk ci ginnaaw dañu góorgóorlu seen liggéey dañu góorgóorlu seen liggéey li nekk ci réew mi kenn mënu koo wax li nekk ci dëkk bii kenn mënu koo wax ba mu jeex lu métti la ñun dañoo sonn

Din ñu tali bi rek lañu soxla ñu defar ko defaluñ tan bi waaw am nañu jafé jafé ndox na courant bi sax amuñu ko courant bi yegul ci suñu dëkk yi ci tali bi ni rek la yem ak ndox bi neexul dafa xam dafa dafa ki dafa dafa xorom dafa sa xorom wa ndox xorom la ci robinet bi déedéet amuñu machine de amuñu machine am nañu bok waye ñu bokul bari wul jang bi xalé yi ñu ngi dang jang waaye école daa manqué CM bi CM daal CM daal dafa dafa manqué waaw waaw yi daa manqué banc yi daa manqué suñu élèves yi ren dañu jooy jooy jooy ba bëgg a dee